xale bu ci réglé ba ñu mayala car se ku wayala baara mbaay xale bu ci réglé ba ñu mayala la xale bi ni muy woy dafa neex yokkal ko tuuti micro am vas-y car se ku wayala baara yaay car se ma woy baara mbaay xale yi di ko foowe ma ngi di ko foowe sama yaay booy ñaanal ma gudd fan ak sama yaay booy yaay booy si ku ma mën a wax ni mën na ma ñaanal ah kooku mënu ma ñaanal ku sama yaay yaay booy ñaanal ma gudd fan ak ba ma dem mel ni ay ñam si di job ba teral la sama yaay sama papa min Lamine Gueye maam Moussa Kala ja woowee sa yaay maam Mamad Gueye la ñuy woowee sa baay yow jom si yow la fekk baax yi papa man de maa ngi lay ñaanal gudd fan ak weer ba nga fekkee samay njariñ yaaw Pape eh, guddal fan. Ah, maa ngi dëkk Malika. Mhm. waaw ndax concert Sidi Diop moom mooy njëkk a yëgal kaw seen. Mhm. waaw di ko nuyu di ko ziar. Mhm. bu baax baax di ko sant. ndax bu moom tay kon tey kenn du ma dégg. kenn du xam Momar. sant di ko gërëm bu baax. sëñ Saliou Mbacke mooy borom njurul borom jàpp na xabaan. Touba xewle nañ boo demee doo mer ah Sëriñ Saaliw woo mooy borom jurul borom jàpp na alxabaan Sëñ Touba la ñuy woowee baayam ba woo Sëriñ Saaliw yaay borom jurul borom jàpp na alxabaan sëñ Tuuba sa baay ja moo julli sa géej ga moo siñe ba moo siñe biro ba ca Ndar yeey sëñ Saaliw Mbàkke ñaanal ma fi nga nekk ñaanal ma fa man de fi ma nekk nii di la way ba mu neex ah sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér sëñ Muntaxa ñaanal ma ma lay ba mu neex yow maa ngi woy sama doomu ndaay waaw yéen de dangeen maa bëgg lool yéen ma lu baax lu baax a baax ngeen yéen ma ko Xaadim Mbàkke tandoo yi lañu woowee sa yaay booy papa taala lañuy woowee sa baay moom lañuy jooy gu ñu ak Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye yow de danga ma bëgg di ma indi seen kër naan ko mamara ngi nii yaay booy mamara nekk nii dafa mën a way sama xarit la yaay abu joobeey abu joobe maa la bëgg lool yow de abu joobe ak Moustapha sama doomu ndey moom de du toog benn jour te ñëwul seet si ma Moustapha sama doomu ndey temps may dem la ñuy woowee sa yaay booy ndeysaan way naa usum ndaw way naa yaadi way naa Pademba ak Tafa ak Mohamed May sama doomu ndey yaa ngi noonu yee yee Idi Sané Idi Idi Sané ba may doon di dugg si way mi daga daan ñëw di ma enregistré naan yaay sama manager Idi yow du ma la musa way naa Pape Niang way naa Ibou Anne mm-hmm. way naa Amet Niang sama doomu ndey yaa ngi noonu dangeen ma yàgg bëgg lool ak mama yella yella